seen lépp rek na jëm kanam dana yokku te yàlla may leen wér may leen yéene may leen wér jëmale ko ci yéen xam ne ñii Dakar lañ jóge te sëñ mën mën xam jamono mu xool saal bi moom tànk bi ban bëgg ñu fi nekk mu ne da leen yéem loolu ci tàngoor waaye nañ ma leen yóbbul sama bi ma leen sëñ bi moo ko moo moo ko teg ñoom de duñu ñu sax dañoo dañoo am lu xewal ñu faggoon bi fii mu ne kon nañ ci jël barke ñu bàyyi leen waaye tuddee na daara fédération bi muuru daara yi kon ku ñib bi ñu ñu yóbbaale ko bu ko defee say xale yi la ca des yow yaa koy yaa koy matali yow mu doon jóorinu la ñun li nga xam ne moom la ñu siñante woon daal te bëgguñ ko mooy ànd ak yéen ba ci sëñ Tuubaa mu jox leen turu daara ji la ca des mooy doxal am ngeen seen turu daara léegi nag def si yéen la dese sëñ bii nag sëñ Xaalim Mbacke mi nag li tax ma woo mu ñëw nii ñun dañu ay taal bi Serigne Saliou Serigne Saliou Diouf moom Serigne Saliou Mbacke yàq na xamal ñu li ma tax xam xamal nañu Serigne Saliou moo ne Serigne Modou ma Mbacke mu ne ma li ma jàngal muy muy lub jaar ma ko mu ne mokkal ko ko mu ne ko ndax dama jaan bu jaan bu ko ko dama day rek mu ne ma jaan amul amul amul ndaw amul ne sar bi ma lay jox muy lubu jam bu mag bi bu ndaw bi bu jigen bi tudduñ ci ben jam rek lañ wax sëñ khalil mi bok ci jam kon liy lëbu sëñ Muntaxa rek mooy lubu lay lëbu maam Cerno ibrahim borom daxu mo koy lubu muy ku bax muy ku yaru le gën am solo frappe ma ci mom bay ki ko ñun ta lañ dem point barre sëñ abdoulah Ndoye mi moo tax xam daaw musuma du dugg kër sëñ Fall kër sëñ Abdou Khadre benn yoon laa fa mos a dugg kon sëñ Saaliw laa xam waaye sëriñ Baara Mbacke moom sëñ Fallou moo ñu jàngal ne sëriñ Touba ba mu xëyee Mbacke Baari Jolof te war a dem ci géej gi ci histoire am boobu ba mu demee ba yéeg ci kaw fas yi boor a dem te téye bopp maam euh, sëñ Fallou ak sëñ Mour Moustapha daa leen ne dénk laa neen sëñ maam Thierno seen baay Thierno gone yi nañ jàng te nañ yar ba mu yàgg mu ne mu xëccaat fas yi ne ko bu fekkee ne njàng daal euh, bu ñaar yi bu ci amee benn bu war a ñàkk nañ bañ a moom damaa gis moom daa yaru xaw ma nag la ca ginnaaw lépp waaye li ma ca intéressé woon ci moom mooy kii nit ku yaru la lii rek laa leen bëggoon seetaan te yàlla rek tax ndax suñu rek laa gëm dégg naa turu bàyyam mosuma ko gis daaru musti bu ma ko demee ñaari yoon la sama dund yaa sëñ Modou Kara laa fa yaayam ma wàcc liggéey ma dem fa beneen yoon ba moo invité sëñ Sall Diouf sëñ bi ne ko damaa jëm ma waaye boole naa kii ko loolu tax ma xam daaru musti

ndax ñëw na fi ba ci kii bi ñu mel ñu mel ni man borom ko gisee ba sax xaw ma moom mooy kan ngir Baye Fall bi daa muur cër bi cëru sëñ Tuubaa bi mu am malaanu Cheikh Rafal bi ko moom waaw kon sëñ bi man maa ngi lay sant te di la jox sama mbule waaw sëñ Baye Fall bi nga xam ne ma kii ma ko ne xam ne je ne suis pas ma ñorul te bëgguma ko dama ko rambul ma ko seet neex nga ma te fasante naa yow couleur gi jëmu sëñ Saliou ak sa yar bi daara jooju nga ñëwoon ci suba sa daara la bu gëna woyof dee fa ñëw ñuy jox ko man daal sa yar bi neex te bëgg na nak gone yi fi nekk yépp ngeen jël ci mom ndax titar ci aduna doyna ci señtu bay sax maam kon bu ko jëlé lakk ko kon na ko ñu ñun ñi sant Jóob ak leneen kon ñu war a góorgóorlu mbir mango ci li ci des yow sëñ xaalim waaw waaw bisimilah sëñ bi borom njëriñ bële bi njëriñ ah, la. di wax ni ni ko sëriñ bi ñu ko waxee léegi ñun daal moo xam ne Mor Thiam Ndiaye moom yor mooy suñu loolu man baaj gi ma takk daal moo xam ne am jaaroo mën a yar ci fayda yar na ci fayda yar na ci jom yar na ci fit waaye tamit la sëriñ Touba dénk koy maam Thiam ngir mu def ko ci njabootam maam Thiam dafa ko njabootu suñu waaye dafa ci njabootam moom mooy jàngal nañ leen ba ñu ar yar nañ leen buñ leen nët yéen a jëm leen ku la yar la kooku desee ko leer ñun maam Cheikh moo ñu def ñun dañoo maam ada di wax ne nag sëñ Xaadim mii biñ ko xamee yàgg ndax ci sëñ Adama Malick ci la xamante ne jaay bi ñuy ñëwee ñu waxtaan man de am naa fu mu doon fu mu doon boo xam sëñ Tuubaa ma njaboot te loolu doy ma doy daayira tamit sëñ bi dénk na ma daayira fi ci Dakar daayira bi nekk ndar maag maag maag maag yàggu dara am na buñ taxawal ñu ngi bëgg a taxawal benn kabar yàggu dara tamit am na buñ taxawal bëgg a taxawal France ba ci ci bëree bëri bëri tere ci daara yëpp ko responsabilité yi na waaye day seen liggéey dama ko ñëw ndax kat ay murid bu ñu nekkee fenn nekkal fa Serigne Touba dafa war ci ñoom seen seen liggéey ndax kat Serigne Touba du koo xam ne dañu koy gis seen tànk Serigne Touba ci booloo la ñu ko gis. ma ne ko nag bu murid di comprendre loolu nekk ci loolu man nag li may dundee murid ak ni ko ñeneen ñuy dundee daa bokk ma ne ko man damay jàpp fu ma teew maa ko si ñu koy rafet duñu war a ràññee Serigne moo ko jëf waaye lu fay lu ñaaw lu ñu war a xajee suñu bopp yi ah. moo tax it xaajaleen taw maa ngi sama biir ku sant Mbàkke ku sant Mbàkke ndax Sëñ Tuubaa man jenn doom laa xam ne Sëñ Tuubaa Mbàkke mooy doomu rox doomu dere Sëñ Tuubaa amul doomu dere Sëñ Tuubaa doomu rox daal doomu rox nag ki sant Jóob mën na ko doon ki sant Njaay mën na ko doon ki sant Fall mën na ko doon te it suñu bàyyi danoo yar ci ne li Sëriñ Tuubaa amoon Sëriñ Saliou daan na ko jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Sëñ Tuubaa defoon ci man Sëñ Tuubaa defoon ci man nag lépp yàlla kese yàlla kasi jooj nag ndaw luñ ko def ci moom day nekk mooy ndax ñun suñu bàyyi ci loolu la ñu te mooy at yi néew taxatu doon xale waaye lii taxa doon xale mooy ñàkk soogu ci yoon yàlla lii taxa doon xale mooy yoonu Serigne Touba ñu tracé ko nga ñàkk jàll lii taxa bokk ci mag ñi mooy nekk ci yoonu Serigne Touba nekk ci ndigal yi bàyyi ay tere moo tax it fu nu mën di dem ku nu fa gis euh, waxuma la sax ñu koy tudd di tudd Serigne Touba waaye bu takkee lenn ci Sëriñ Tuubaa dañ koy dañ koy warmal ndax Sëriñ Tuubaa kat kat kon noo ngi leen di sant bu baax a di leen gërëm eh, di sa di la sant bu baax sëriñ bi di eh, wax ni noo ngi jéggal bu baax ba baax a baax ndax yeex nañu yeex nañoo ràññee jëm bi waaye li nu ci frappé rek mooy dal bi oyof bi ak tey tey di wax ne Sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moom noonu siyaare léppam taawam bu bu si borom daal moo ci la sëriñ bi nettali na ma ni bi bàyyi seen xat yi wàccee liggéey ci la xam ne suñu Mountakha day doon ne ko lu ne ma bàyyi seen dafa wàcc sëñ Abbas war a ñëw doon xalif bi bàyyi seen xat yi bi bi bi ñuy waaj a jullee sañ sañ bàyyi seen xat yi sëñ ñëw bi sëñ Abbas ñëwee sëñ bi di ko nuyoo

waaye man dama am pas ci sëriñ bi dama tok toog damay dund sëñ ndax lama koy gisee du bëti du bëti bok waaye bëti du bëti xam waaw te te te sëñ sëñ sëñ Moussa ga wax ni borom xol bu manam bu tilim wala borom ki mo gën mo raw borom bët di fett borom xol bu gumba mo raw borom bët di fett te sëñ Touba li ni def ci nit moy lolu Cheikh Moussa Ka wax ni way de ya nga dekkal dama na Aïssa Aïssa da nga fek ni dee mu dekk ci Touba day fek xol bu dem dekk waaw xol bu dee mu dekkal ko nag mooy fekk koo xam ni booy juram ak njabootam ak ñëpp bàyyi woon parce que dafa doon sàcc woon dafa doon naan woon dafa doon tukk sëñ Tuubaa tarbiye ko tesbiye ko tesbiye ko xamal yàlla ba leeru yàlla bi maarifatul billaahi nekk bu nekkee ci moom nag day tuddee mm. moom lañu sëñ Tuubaa def te bi nga xamee ne yonent bi feeñ na pour jox ko ndigal mu taxaw yoonu mu def ne ko moom génnee def ne tu fi njàngum kese kese yi da jël seen bagage sa fi ñu jàngal ni danañ indi dëkk bi nga ñëw ñaan leneen lool na du leen lu dul wet sëriñ bi wormaal xam naka la ñuy toppee sëriñ ak naka la ñuy nekkee ci kanam sëriñ waaye tamit du leen lu sa borom ba mel ni yàqu yi waaye tamit boo gis nga xam moo mooy xam-xam boobu nga xam ne yàlla dafay joxe te du nekk ci téere ndax ñaari xam-xam moom mooy bi nekk ci téere bi nekk ci téere bi boobu moom la historien yeeg philosophe yeeg jàng bayi bini kuti yere na mumu sini tu bari yor tu kinda nu faru. Ndak yor nanti bisa lai rosa lo. Na bil bumi la jang. La bayi finda lo moi. Bapa wa mat kawa hai sinyer. Munyo bini muhammad ura sulu la. Ben do ko e pasel. Pasel bumu ni ara sulu la ko e pasel ara sulu la. Mom do ko bini kamu fal dara sulu kita ara eh, sulu la kita amre kiyo. Sena alin moyo. Wok pun kila tamre eh, kita kile. E pasel ko. Waya nyu dem bom yakite jualan tibina ana madina tu hai mu. Ko alin babu. may néegu xam-xam àllin mooy ut te mooy mooy yonent bi jàng kon ban xam-xam la yow xam-xam boobu mooy xam sa boro xam ni ñu koy jàmm te xam-xam boobu bu ko yàlla defee ci yow dara dootul am bu ko yàlla defee ci yow da ngay xam yàlla rek yàlla bu ko yàlla ci yow lépp ci àdduna da ngay xam ne bu dara waaye yàlla rek waaye moo taxit yal nañu yàlla xel nekk ay murit waaye man damay wax ni damay wax wax joo xam ne murit bi bay duñ ko dégg mooy damay wax ni yàlla bu ma dee jënd ndax murid moy ku namba dem ci yàlla muridullahi ay na muridullahi mooy ku namba dem ci yàlla dafay melni ku nek Dakar nan namu na dem tuba kooku bu dewe ci namm bobu dem tuba kooku bu dewe ci namm bobu dem tuba kooku bu deewee ci namm boobu demul Touba dëgëru bi taxaw ndax sëñ Tuubaa def ne ana ñu na ma dem ci yàlla léegi yow ndax da ngay namm sa biir bi boo dem ci yàlla mi la sëñ Tuubaa defoon sëñ Tuubaa du murit sëñ Tuubaa muraat sëñ Tuubaa dafa jaamu yàlla xam yàlla ba yegg ci yàlla bi mu yeggee ci yàlla daan ne yéen ñi nga war bëgg a dem ci yàlla nag ñëw leen léegi nag yow naka ngay tuddoo ku bëgg a dem ci yàlla sa dund gi yëpp nga nga teesal ci nam mooy yow sa oto yow sa gaz waaye sa lépp toog Dakar ne nag mën naa dem Touba toogal ba xam ne nga dem Touba boo boo boo demul Touba sa mission moom yeggale moo tax yàlla bu ñu dee ci bëri waaye yàlla nañu doon ay muraad yàlla nañu doon ay saadiq yàlla nañu doon ay siddiq yàlla nañu doon ay saddiq ndax saadiq mooy mooy li gën a yomb waaw saadiq moom mooy mooy maqaama da ngay gis man murid saadiq la murid saadiq daanaka moom mooy maqaama bi njëkk da ngay doon siddiq doon saddiq mooy koo xam ne amatul dara loo xam ne nekk na diggam ak yàlla waaye dafa sey yàlla te it damay wax ne murid yi nañu am fulla ji maam Cheikh Ibra Fall amoon bi mu ñëw wax naa ko ñoom seen kaadi kaw ne ko man Cheikh Ibrahima loolu laa ko nawee mooy fulla ji ma amee ci fas ndax man damaa judd ci yoonu Mbacke ci yoonu Mouride laa judd fekk sama baay muy seen fekk sama waay euh, samay maam ñuy seen ñu leen di su jot ak di yaadaama ma ne ñii kat li ñu nekk naa xool ba xam ne balaa may jox kenn sama loxo mu koy fóot danaa xam lan moo tax ban daraja dama yàlla jox ba may ba may ba may ba may damay joxe sama loxo bi def hmm. loolee dara yoon ci yàlla Ibrahima ndax Ibrahima dafa judd ci famille boo xam ne dañuy dal ci yàlla bam ci juddoo mu ne samay wayjur kat ñepp ay tabax yàlla bay mo ne kon tabax tabaxati yalla bañ daan jaamu ci jamono waaye ibrahima ba mu jógee def ne ndax li mo yalla ñu ne ko déet ñun de lii lañ ci tek li moy aade ba ñoo noo topp ci aade mu ne déet rek yalla jógee dal di gis ñuy jaamu biddiw mu and ak ñom di jaamu ba muy jaamu biddiw di jaamu biddiw ba mu yàgg mu gis ñeneen ñuy jaamu wër mu ne wër wi moo gën a rëy biddiw kon wër mo mooy nekkaat ci weer bi di ko jaamu di ko jaamu ba gisaat ñuy jaamu jant mu ne jant bi moo gën a réer kon jant bi moo yàlla waaye gannaaw bi nag ci la ko yàlla loolu yëpp du yàlla waaye ay càkkitéef yàlla ci la ko yàlla xamal yëpp mu bëggee xamal famille boobu ne li ngeen di tabax du yàlla dafa xaar ba waa dëkk jël yàlla yu ndaw yëpp toj lekk bi mu jël yet wam yàlla yu ndaw yi jël ko teg ci yàlla ju ñëwee ne suñu yàlla yi ne toj nañ ana kan moo ko def mu ne man da xam naa ko def ñëw a kanam seen yàlla ju mag bi moo ko def waaye dëkk bi ne ko yàlla ji nga xam ne bougé fu mu taxaw nan la ko mën a taxaw mooy yéen naka ngeen di jaamu ku mënta bougé fu mu taxaw boo xam ne dara boppam naka ngeen ko mën a jaamu kon réflexion boobu nga xam ne Ibrahima da ko def man dama koy def ci sama jëm mooy judduwuma ci woon a murid ndax je ne suis pas mouride par naissance je ne suis pas mais je suis mouride après avoir fait des recherches sur le mouridisme damaa xam li ma nekk gëstu ko ba xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy kon moo tax yàlla Serigne Touba xiir foofu mooy ñu xam ne ñu nekk waaye xam ki ñu àndal ndax Serigne Touba ku jafe xam moo tax Serigne Mountakha saa buy ñaan dana yàlla nañu xamale yàlla danaan bëgg Serigne Touba te muy dëgg sax mooy àjjana li ci bëgg bëgg Serigne Touba te muy dëgg mooy àjjana li ci te loolu mooy yegg ci foofu Cheikh Ibra yeggoon ndax Cheikh Ibra mag ñi wax nañ ne Serigne Touba ko dem ñu yang mu untuk punya ñun aja ko ngir àjjana ak sawar waaye dañ koo topp nekk am nañ indi am na ju mag bés dafa jékki-jékki ne man de ñaan sama kau. ñu ko ana lu nga wax mu ne mui dem yàlla nan ma yaa tooñ ma ko waaw naa ma yaa rey ko waaw ma naa ma yaa ma ko waaw nee wax wax wax gi may wax ak neex ci sama sa bëgg dem ba jeex yàlla ba sa lépp nekk yàlla Cheikh Ibra Fall foofu la tolloon ci seen seen tubaab waaye maam Cheikh Ibrahima bi foofu la tolloon seen tubaab kon ñun ñu jógee ànd ak ñu mel noonu suñu Fall daan ko dab de waaye ñun kenn duñu dab waaw seen mënu ko dab maam Thierno kenn mënu ko dab Cheikh Ibra Fall ko dab waaye buñ lay di la tudd di tudd maam Thierno am na melokaan yoo xam ne jox war nga ko jox wax naa ko ñoom seen taay bi ñuy karab bi ñëwee man de léeg ma dégg nit wax dara jëme ci yoonu murid damay leer ni teg ko sëñ Tuubaa waaye murid ba nekk ci wetam la moo tax murid bu nekk ambassadeur la fa mu nekk li muy doxee rek noonu la ñuy considéré sëñ Tuubaa gis nga boo jubee dëggal dañuy naw sëñ Tuubaa respecté ko ci sa jëm waaye boo dëngalee jàddal dañuy yab sëñ Tuubaa sa jëm te sëñ Tuubaa leer na ma ne ni jaamu na yàlla yegg ba ci màqaama bi nga xam ne mooy xat yi wala kenn yam ko ci góor yàlla kenn yebul sa sëriñ nag yow sa taalibe war ngaa fexe ba ñeneen taalibe bañ laa yeb bu ñu yebul sa sëriñ war ngaa fexe bañ yow yeneen taalibe yi kenn bañ la teel mooy Sëriñ Tuubaa ñun kenn yebu ko ci góor yàlla yi kon ñun ay fexe ba li nga xam ne ci lañu Sëriñ Tuubaa digal ñu nekk ci kenn bañ ñu yeb ci lenn ndax ñu digal Sëriñ Tuubaa nee na yu jëfe ndigal bàyyi tere bu ma ko faw ci yàlla may kon dafay mel ni Sëriñ Tuubaa dafa dem ba ci yàlla mu jël la ci ëpp solo mu yónni ko jox kon bu ñu sëriñ bi defalee privilège yooyu yëpp te li may wax ni sëriñ Tuubaa moom bokk ci bu ko xaalis doon maye américain yi moom bu ko xam-xam doon maye américain yi moom sumaay jël ko kon sëriñ Tuubaa yàlla moo ñu ko trésor la boo xam ne yàlla ñu ko sànni bu la yàlla sànnee dara la loo xam ni defoo ci dara ndax fu mu toll ni sëriñ Tuubaa bokk ci du liggéeyum ndey ndey mënut a liggéey lool Sëriñ Tuubaa bokk ci du liggéey ndey du liggéey bàyyi Sëriñ Tuubaa bokk ci ndimbaleel yàlla kon bu nu yàlla dimbalee ku mel ni Sëriñ Tuubaa yàlla waaye nanu ko fonk xam kan mooy Sëriñ Tuubaa xam niñ ñu defal tey suñu pas-pas tey suñu taalib tey li nga xam ne mooy yoon mu ndax lu ñu am rek yoon maam mënuñoo am lu faw ko yoon mu mënuñoo am tamit lu faw ko Sëriñ Tuubaa waaye tamit mënuñoo am lu faw ko njabootu Sëriñ Tuubaa kon nañ leen gën a fonk sëriñ Aliou baa ngi mooy seen man bu ne xam na ne ndigal ma fi indiwoon mooy ba ngeen ñëwee wax sëñ bi ne da ngeen am yéene dem ci sëñ Mountakha siyaare ko sëñ bi def na leen Cheikh Khalil Mbacke gi noonu bu ngeen dem bu ngeen bu ngeen bàyyi bind leen ko na bokk moo tax it bañ ca kiwi rek dañoo bokk ca dañoo dañoo am yéene bokk ca ñooñu nga xam ne dañuy dem kon ñun loolu mooy ndigal moo ñu fi indiwoon waaye buñ noppee ña ngay delluwaat ci suñu wax naa suñu xaalis léegi ne man xam naa yitte yaa ngi may xaar Dakar damay daal di ñëwaat léegi bi ma ko mbure di yolu rek ma daal di delluwaat léegi Dakar nekkaat ci añi fi ndax comme que ndigal moo fi moo fi indiwoon tey def naa ndigal loolu nga xam ne seen bi santa na kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax